dana jóge ca këram si sa kër góor gi euh, wutali fii nga xam ne moom mooy en face mosquée omarienne foofu lañu ko euh, woolu kon nag euh, mu ngoog nañ waxante dëgg woolu nañu ko moom nee na dana wuy ji waaw nee na nag lu njiit njaak lu njiit njaak moom xam na ne Ousmane Sonko moo di njaak moom na joxoñ baaraam démb ci vidéo nee na que lii yëpp ay manœuvre la ay tegtal yu nga xam ne ni Ousmane Sonko moo nekk te ginnaaw Bougane Gueye Dany moo ko wax nee na ka nag fi mu nekk nii la nga doon ñaaw démb moom ngay def tey maanaam utiliser suñu police bi suñu gendarmerie bi rawatina suñu justice bi en général ngir faagaagal ay adversaire politique waaw ngir mën a régler yow say problème politique su tu veux m'éliminer il faut s'armer de courage il faut que tu te salisses les mains nee na ko nag fu mu nekk nii mën nga bëgg éliminer xam naa loolu yàgg na yàgg ngaa teg say pexe pour éliminer ma man Bougane Gueye Dany waaye bu yeboo nga xam ne loolu du yomb ci yow boo ko bëggee def faw nga taxal say loxo Ousmane Sonko je suis plus courageux que toi Bougane Gueye Dany mooy wax nee na ko man de biñ ma convoqué damay dem wuy woow ma kenn ngir nag mu wàcc si mbedd mi waaw woow ma kenn nekk kaay nga dikkee ma renfort maa ngi dem wuy ji dañ maa dañ maa woolu waxuma dam dañ may poson waa moom waxul waxal conclusion laboratoire yi waaw <laughs> moom ci boppam Bougane nee na biñ ma man dañ ma woon damay dem wuy ji te woowu ma kenn waxuma benn xale wàccil si mbedd ni kon nag man maa lëpp courage Thierno Alassane Sall mi ngay dikkee renfort ki nga xam ne moom mooy Bougane Gueye Dany ak képp ku nga xam ne ñu ngi luy woolu ci jamono jii nga xam ne dafa jàpp ni nguur gi moom ci benn pante bu nga xam ne nii bës bu yeggee sa suuf dina doy waar mu njaay si si daal di dikk nee na wóolu nit ki déeta waaye nga jël ne ràpp tëj loolu solution de mm-hmm. emprisonnement systématique bii masul nekk solution l'ancien régime l'a appris à ses dépens. Ah ndax nguur gi fi nekk. lan lañ doon wax. nguuru Macky Sall un euh, salaamaaleykum maaleykum salaam ñu ne ràpp tëj. teraangay kaso lañ doon wax ne moom lañ def. salaamaaleykum ñu ne ràpp tëj. nee nañ euh, mu Ndiaye nee na lii ñuy seen mii nii nag dafa mel ni fa la ñu jëm ak nguur gii. te loolu du solution. bugaan ngay dana ci yéenekaay bi jamono joojee retour de Pâques daanaka la Kader am sunu naataangoo bu euh, grande gueule fii ci Sen TV bi. waaw ah, moom dama xam ne grande gueule nee nañ mooy kër dof yi man dof kañ lañ koy jàpp ñuy bañ nañ ko ba ñu la waxee dof la dañ lay bàyyi nga dem ñun dof yi moom mën nañu bàyyi rek ko fa dëgg ñun ñii ñooy kër dof yi comme kër dof yi la bokk nag dof kenn mësu koo jàpp ah, boo fa eggee da nga bàyyi ah, koo jàpp nag comme ñun ñooy kër dof yi nag ñun la ñu neex wax ay ca tribune yéen kay daal dikk ci Cheikh Yirim Seck moom it wol nañ ko démb dañ ko téye di en attendant jamono joojee nag ñu ngi leen di fàttali ne fii réew mi Mamadou euh, euh, euh, Mohamed Diop suñu naataangoo la fii ci Sen TV nee na yéen stagiaires yu gouvernement public bi li ñuy xaar ci moo di ngeen liggéey. liggéey rek la ñuy xaar ci yéen. liggéey ndax cherté de la vie ñàkkum xëy mi ak fii koom gi toll de redoutables adversaires de Pastef aux législatives ndax nee ñu ñun ñii ngeen bëgg éliminer ñoom buggaa ndax yow duñ ñu i adversaire seen i adversaire ñoo di dund gu cher bi. ñàkkum xëy mi ci ndaw gi. ak koom gi ngeen xam ne ne ngeen réew mi dafa nekk en ruine. le yéenekaay daal di dikk lii ca ñag ba la jëm noonee la ko tuddee le pouvoir perd seen nerfs dafa mel ni kon pouvoir bi fu mu nekk ni dafa tàmbalee réer de sérénité waaw seen contrôle moom yoratuñ ko Cheikh naa Kayta ñu daal di téye ba jaxate ñu daal di téye woon kii nga xam ne mooy Amath Suzanne Camara kii nga xam ne mooy Cheikh Yirim Seck jéggi Lat Diop Bougane ku si nekk jot na sa wàll ci convocation yi. ba pare dafa teel sax. oui dafa teel quand même. nee ah, lii ani lan moo ko waral jamono joojee mu ngay wax. mu ngay xataraayu avec ses ah xataraayu kay. mu ngay xataraayu mu ngay xataraayu ndax jàpp na ne nii nga xam ne moom la ñuy doxalee nguur gi wax fa dëgg kenn xaarul woon loolu si ñoom. mais li mu wax li sax daa garaaw dégg lii la. moom Alioune ca kaw. avec six personnes convoquées ou gardées à vue ou emprisonnées pour des délits d'opinion en six mois seulement de règne Bassirou Diomaye fay remporte la coupe. le trophée et toutes les autres médailles. six mois six. six convocations. Ah, xam nga lii daan daan mooy doon conséquence bi. Mm-hmm. tey beneen conséquence bu muy jur moom mooy bépp investisseur bu bëgg a ñëw Sénégal. Mm-hmm. dootoo ñemet si bien sûr. la doon Sénégal mooy dégradé. oui parce que da nga naan mankat kat feenee ña nga ca coowal politique. est-ce que wóor na ma dugal fa sama xaalis au moment où vraiment moom nañu waroon na gën a mutualiser suñuy force pour dalal xelu surtout investisseurs yi pour ñu mën a ñëw Sénégal. Mm. par rapport ak justement le contexte socio-économique bi nga xamante ne ni ñu ngi koy dund. très bien c'est malheureux. ba tey tel réew mi quotidien division de la euh, division de la cybercriminalité en tout cas Cheikh Yérim Seck dañu ko euh, téendi euh, placé en garde à vue yéenekaay bi daal na ci dikk dikk également. ci dundu gu cher gi le coût euh, de la démocratie la ñu ko tuddee li jëm ci wàllum législative yi ak nag nanu ko war a tëggee xaalis bi ñu war a génne daanaka élection treize milliards ci defar bulletin treize milliards pour defar bultin yi donc élection yi nag ko fa dëgg neex yàlla ni mu mel nii hmm, yàlla baax na mooy élection lu mu gàtt gàtt dina lekk vingt milliards le gouvernement refute les allégations du PIT ñii nga xam ne mooy ñi nekk agent fonction publique bi euh, nga xam ne waa pays tey nee nañ li ñu gis muy raab ni soo moytu seen salaire dinañ ko CNG naam luñ ci dagg. en tout cas gouvernement bi weddi na de. aywa loolu ñuy wax noonu. loolu amul ah amul de ku génne woon information bi. na pays tey démb tribune yéene kaay moo ko joxe woon. le peuple quotidien daal di dikk également euh, ci euh, Bougane Gueye Dany ak Ousmane Sonko nee na ko vous manquez de courage je suis ndax man biñ may woowee wax fa dëgg neex yàlla waxuma kenn kaay leen ngeen di caméra fort. te boo ma bëggee éliminer nag faaw nga taxal say loxo Bougane Gueye Dany daal dina ci dikk ci euh, euh, euh, li nga xam ne mooy Walf Quotidien le grand bo ah finalement da ngay instaurer dualité mi la mais moo nekkoon sax parce que Bougane moo njëkk taxaw ci scène bi opposition moo fi nekk de fait na que boo bëggee éliminer xamal ne kon du yomb de il sama élimination du yomb de le point actu waaye il est cinq kay le point daal di dégg pareil on en a parlé. Bougane accuse Sonko de vouloir donc saboter la candidature de Barth. wax na ko de. ne rek nga xam naa li ngay def yow yaa ngi teg ay pexe pour songu listu waa Sàmm sa kàddu waa Baar. boobu yaa yaa ngi ci man mais xam nañ ne it yaa ngi nas ay pexe pour Barthélémy Dias. kon xaayaal ku dégg séeréer. xaayaal ku dégg séeréer. nee na xam na fa nga jëm nee na ko boo réew ñëwee toog ba waxtaan loo wax rek mu ngi ci man. Bougane tamit il est rejeté nag tamit de. waa ji tamit il est rejeté tamit nag de. jéem bi yëngu na nag. Ah. aywa terreur la classe yéen a daal di euh, euh, tuddee. ayca man garaawul man ko jeexalee rek ci. Odia. Odia mi moom gis naa fa ñoom Anta euh, Anta Babacar ki nga xam ne moom mooy Macky Sall. xanaa kee Karim Meïssa Wade la. Serigne Moustapha Sy Khalifa. ah Bougane Gueye Dany Khalifa Bart en tout cas ñoo ngi toog. mais comme Amadou nag moom moom mi ngi commencé andi ay jiixi jaaxa di wax naan fii bokk fii laay fii duma bokk zone bi mën nañ ànd zone bi duñu ànd dafa mel ni liñ plat bi intéressé wu ko. je me casse. intitulé Odia waaw dafa bi intéressé wu ko. très bien la Moussa Tine